mbokk yi dalee nag jàmm ci seen jotaayu xibaar di leen jaajëfal ci safoo bi ngeen safoo OSR Monde xibaar yi dañu koy dooree ak coupe du monde fële ca Qatar Kalidou Koulibaly trophée homme du match bi ñu ko jox nag ginnaaw ndam li Sénégal am ci kaw Équateur jëlaat na ko nag jox ko jaajëfal ko famille waa Pape Bouba Diop capitaine gaynde yi nag ñëwaat na ci qualification équipe équipe nationale. national bu Sénégal bi ci huitième de finale yu coupe du monde yi moom nag nee na jongante bi métti woon na loolu waaye alhamdulilah génn nañu ci ak jàmm Koulibaly nag xamal nañu ni match bi dañu ko waroon a gagné suñu bëggee des ci jongante yi lu ko may dinañu ñibbisi waat te joueurs yi kenn bëggu ci woon ñibbisee champion d'Afrique yi nag seen mbëbët yu njëkk mooy nekkoon jàll ci premier tour yi léegi nag beneen jongante la dooraat moom nag nag nee na anniversaire décès Pape Bouba Diop bi nag tombé ak seen bésu match yi yokkoon na tax ñu bëggoon gagné match bi teg si ñu joxaat ko homme du match mu jaglewaat ko boobee raaya famille ki fi nekkoon numéro 19 bu équipe national bu Sénégal moom Kalidou Koulibaly nag nee na mu ngi jaajëfal bu baax famille Pape Bouba Diop bi nga xam ni ndax gis na gis nañu ñoom ñëpp équipe national bi message yi ñu leen doon envoyé ak jàpp jàppale beeg taxawu biñ leen doon taxawu te loolee rafetlu nañu ko bu baax ndax ñooñee ñoo gën a yokk ñoo leen a gën a yokk doole ba ñu egsi fii ñu egsi tay ne te ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax bu ñu jàllee ci première tour coupe du monde bi ñoom ñooñee jàppale yow ñu leen doon jàppale ak taxawu yi bokk na ci li ko gën a yokk ñu yeggali xibaar yi ak politique garde du corps yu Ousmane Sonko yi ñu jàpp ca ci ki tribunal bu Mbour nag daan nañu benn weeru kaso kii di Lamine Sonko Modou Diop ak Jakiti Diop ñu jàpp tamit Oumar Dione ñaari weeru kaso tribunal bi nag jox na joxe na verdict bi bu ñu sukkandikoo ci waa Dakar Actu ñoom nag dañu leen condamné ndax ay coups ak blessure yu ñu def ci seen ay tayeef Abdourahmane Dione ak Oumar Dione ñoom nag ku ci nekk war nañoo fay amande yu téeméeri junni Pathé Mbaye ak Ousmane Diop nag ñoom itam ku ci nekk ci sa côté ñaar fukki junni lañu war a fay ci fàttali nag jàpp yi ñu jàpp garde du yu Ousmane Sonko yi li ko waral mooy nemmeeku tuur yi seen njiit bi amaloon ca Cikki commune bu Diass loolee waraloon nit yu bari gaañu si ndax jàmmarloo yi fa amoon na mbokk yi lii leen leen indiloon ci seen ay jotaayu xibaar fii ci OSR Monde di leen jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen i jotaayu xibaar.